asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bokki jullit yi bokki taalibe yi bokk yi nga xam ne ñoo ngi bàyyi xel fii ci jumaa ju mag ji nekk Touba ci ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru tamxarit ànd ko ak commission bi nga xam ne ñooy saytu lépp lu jëm ci wàllu weer wi ci njiitul sëriñ Mouhamadou bu so mu ànd ko ak sëriñ Abdou Diop imaam yara kàddu gi waa ànd ko ak waa daayira Muxaddamatul Xidma ci njiitul sëriñ Afiya Bousso Eh, ñi ngi waat fii ci ñaar fukki fan yi ak juróom-ñeent ci weer wi waaye ñu ànd ak sëriñ Bachirou Mbacke mu sëriñ Abdoul Khoudous mu nekk ca Daarul Moxti dox suñu diggante ak waa Tiwaawoon waaye ñoo ànd ko ak sëriñ Modou Mbacke si mi nga xam ne moo jiite mbooleem représentant xalif général des mourides yi ne ci eh, Sénégal ànd ko ay tam commission bi nekk Dakar ci njiitul imam jeen ak imam Ndiaye eh, tey jii nag la ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ginnaaw bu ñu sëlmalee timis Eh, yéene nañ ci ne nañu séntu weer wi bi ñu noppee ñëwaat nañ ci buntu sow bi jàkkaar jàkkaarloog tali El Hadj Babacar Kébé Ndiouga yàlla na sunu borom doole ay leeram eh, kaddu yi nga xam ne nag mooy doon kaddu yi ndigal yi bàyyi ko ci Serigne Touba Cheikh Mahamadoul taxa waxtu wu ne mi ngi jóge ci Serigne bi ñëw directement ci sëñ Moudou Mamoun Boussa wàcc ci sëñ Abdou Diop imam mu war koo jottali bokki jullit yi ak bokki taalibe yi ñuy séentu nag weeru safar wi nga xam ne moom la sëñ Touba ne na ko jullit yëpp maasee sant la boromam kon sëñ Abdou ñu bàyyi ko ak kaddu bi mu jottali asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ni ko sëñ Fallou si la waxee rek noonu la demee maanaam weer wu ne sëñ bi doon yebal ci jumaa ji ngir nu yéene fi wax ne ñu séentu weer wi ci ndee ci ñaar fukki fan ak juróom-ñeent yu ne waaw te ko ci xam lu weer nga ñëw yégle ko bu ko defee euh, buñ ko sé buñ ko buñ ko yéenee bu noppee dañuy toog ci sow di ñun ñëpp di séentu ak di jokkoo gox yi ngir dajale xibaar yi bin jokkoo nag ba waxtu bi nag mel na nag mel mel mel mbo daje nañu xibaar yu yu bari yu yu wane ne gis nañ ko ci biir yu baree baree bari bi ñu defee loolu nag lañ jokkoo kër sëñ ba yëgal ko ko ba sëñ bi kon joxe na ndigal ne kon ci noonu ngeen ko gisee rek kooku moom it joxe na ndigal ci ñu war ne suba kon mooy benn fanu safar waaw ñëpp xam ne kon suba ci altine ji mooy benn fanu safar kon nag ñëpp ni ko xam kon. màggal gi alxemes lay doon kon waaw ñu ko ñëpp xam moom waaw màggal gi ñu xam ne alxemes lay doon kon te ñaan waaw nuy ñaan bu fukki fan fukki fan ak fukki fan ak juróom-ñett fukki fan ak juróom-ñett ci ci ci weeru sabar waaw dëppeeg bër bër kub alxemes altine talaata àllarba altine talaata àllarba bu alxemes ci lay jógewaat bu ci jógee bu juróom-ñetteeli fan ba mu alxemes lay doon waaw mooy loolu kon bis bu alxames lay doon kon na ko ñëpp xam noo ngi ñaan nag sëñ bi yàgg fi lool te wér te li ñuy wut ci màggal gi lépp yàlla may na ko ci xew xeeti xéewal yi ni war a doxale yëpp nu am ko te am dee ci ngërëmal sëñ Touba salaamaaleykum wa rahmatulahi taala aleykum weer wi waruñu ko yëkkati lu dul na ndigalul sëriñ bi moo jib ginnaaw sëriñ bi dafa tànn ab commission boo xamante ne bi ci jamonoy sëriñ saa Saliou la ko tànnoon fab ay ñu ko day jiital leen ci muy Serigne Modou Mamoun Bousso imam ànd ko ak waa daayira Muxaddamatul Xidma ak kilifa yi ñu ko seqal kon ñu ngi sàkku képp koo xamante ne bii organe bi nga yor ci yoonu murit lay tënku bala ngaa waxati ne weer yi feeñ na wala feeñut nañ nekk ba jot ndigalul Serigne Touba Cheikh Mamadou Mountakha ndax ñi koy séentu mbooleem région yi ñi ñu ko fiy séentul buñ ñu waxee ne gis nañ ko it ñun amuñu droit wax na gis nañ weer wi mm-hmm. dañuy delloowaat kàddu gi Serigne Touba Cheikh Mamadou Mountakha na ko dëkk sàngam ak dëkk sàngam gis nañ ko bu nu sëñ bi ne nañ wax ne feeñ na ñu wax ne feeñ na bu nu sëñ bi ne bu leen ne feeñ ne dañ naan bu feeñut kon ñun amuñu droit joxe ndigalul weer wi feeñ ne ci Serigne Touba waxuñu ko kon nag ñi ngi sàkku ñëpp ñoo xamante ne bii ñi ngi ñuy bàyyi xel bala ñoo joxeeti ndigal nañ nekk ba Serigne Touba joxe ndigal ba noppi ñu joxe ndigal loolu ndax ndigal benn yoon lañ koy jëfandikoo te Serigne bee mi ñuy jox ndigal laa tafxalu shay'an bi xayri idni fal isnu shartun fi xabuli saani nuru na jekk nañ mu wóor la na jekk na da gën a wóor ñi ngi sant ñëpp di leen gërëm wasalaamaaleykum